les bâtiments là depuis 1940 les américains sont depuis 1940 américains yi ñu français Les français ont dem ñu reversé euh, sénégalaise malheureusement la bi armée sénégalaise mom ko en 1994 donc pour nous, ñuy opérer suñ salaire c'était encore illégal anormal parce que bâtiment est armé à Momoko. donc on devait être bénéficiaire du logement et de l'IRL non content de tout ça ils nous ont coupé l'IRL mais à l'avènement d'Ablaye à safra bala avènement Ablaye Wade am signalé en 1994, ne ñu yéen fu si vous avez bu de bâtiment faites une demande ñu jox vous bail les logements et c'est ce qu'on a fait par l'intermédiaire de nos épouses parce qu'à l'époque on était tous des militaires on était en fonction boobu ñu ngi lié. Le problème si vous la ko expliquer vous nga comprendre di nga yaakaar ne pas yi ñoo dañu dem retraite ñu bañ quitté quitter logement mais ñun bañuñu bañuñu bañuñu euh, quitter logement eh, dañ fi nekkoon ndax suñ droit droit moo ñu ko may 94 état bi ci eh, eh, bi bu mu jeexee bàyyi bi waa ji ñëw wax ñu loolu soufflé loolu suñ jabar yi ñoo def demande bi adressé à Ablaye Wade les réponses sont là encore avec nous favorable avis favorable comme c'était des épouses de militaires ñoo def demande bi Ablaye Wade bu muy répondre euh, réponse bi jaar par la voie militaire réponse bi bu mu daanoo jël Diop ñu échanger suñ tur defar seen tur yi ñoom de ñuy dëkk fii buñ ko buñ leen neewoon sax kaay ñu may leen fii dañuy bañ ndax état bâtiment yi entretien bâtiment 1500 la et personne n'a entretenu le bâtiment personne jusqu'au moment où je te parle bâtiment a bu baaxee bu rafetee et man alors euh, suuf dafa mel ni nit yo ni nga carte d'identité Nous avons la carte d'identité carte d'identité suuf l'état état des droits réels buy jënd suuf te nga xam boo demee domaine bu wutee kayit bu ñuy wax état des droits réels moo lay wax yow fi nga bëgg a jënd nite ko moom wala état moo ko moom et ce qu'on a fait comico bu mu nee fii moo ko jënd c'était notre premier entretien c'était au camp j'étais le premier à leur demander s'ils peuvent me présenter un reçu ils m'ont brandi un reçu de 105 millions pour 105 euh, millions pour, euh, je crois, 3 hectares, non, pour 140 parcelles. 140 parcelles. Évalue la parcelle, 105 millions. mën nga calculer parcelle bi la wara ci 105 millions nga diviser par 140 lu mu lay jox ci valeur souf wakam ñu may la ko sax mo gën déjà triandage baa ngi le premier mensonge c'est encore là dégg te état de droit réel boobu ma lay wax muy carte d'identité suuf si bu ñu naan ñoom ñoo ko jënd saa ñu ñu ko téye doo fa fekk tur comico abadan ñoom dañuy mbuboo tur comico mais ñoom chef fii ñoo pàccoo fii non on on a des baux qu'on a saisi am na ay baux yu ñu jàpp fii nit ñi dañuy jógee dakaar ñëw fii naan damay ñëw pour seet sama terrain ñu ne ko mbaa am nga kay mu ne ñu waaw. ñu nangu kayit bi dem photocopier ko dem loolu moo ñu sauvé ci suñu procès ñu gagné état gagné ñoom à cause des qu'on a saisi Nous dégg ñoom kay seen galon yi ak seen trafic d'influence bi à cause de leur autorité moom moo leen may chance et moi je peux maintenant incriminer état parce que état je dis que l'état est complice et à moment on voulait nous endormir en nous disant c'est réglé c'est réglé Ils règles pare nit ne nous sommes génnee nous sommes ko ko mais état damay Birame Diop mais aussi mere état bi Macky nous au moins même si c'est un jour on a rendu service à la nation.